bu yàgg ñii seen. par seen mi ngi nii ci Touba président mi ngi nii dugg si jiitu na mi ngi ci oto boobu di dem groupe. la Kër mi ngi nii di lay président mi ngi nii dugg si. seen protocole yi dafa doy waar. Mm-hmm. oto bi nga xaar ak bi muy dugg. dem na dem na. oto bi mu dugg romb li nga bëgg de moo fi sëñ Touba waxal li nga bëgg boo dee moo fi sëñ Touba. yal na toogal ñëwal ñëwal ñëwal toogal nga toogal toogal toogal Bassirou Diomaye Diakhar Faye c'est le président de la République c'est le président de la République macha allah première sortie yàlla defal ndam